dund que trois mois ça a été fait cette semaine réaction waaw xam nga am na koo wax léegi Ablaye Wade bi mu waree daanu xaw na yàlla mooy dogal dañuy yeewu rek ci gën a ñaari tuuri ceeb bi jógee dix-huit mille xaw ma dix-sept mille cinq cent mhm. dem vingt-cinq mille ma ne kii daanu na ndax yow nit ñi li nga xam ne moom la ñëpp di dundee ceeb mhm. diggante ñaari tuuri muy yéegee yéeg bu yërul maanaam bu jéggi dayo léegi loolu kenn xamul lan la ñu teg un mois waat daanu bu ñu wàññi ceeb bi dafa war a dem xanaa moins dix huit mille franc wala dix huit mille franc ba. ndax ci espace euh, boobu rek entre deux tours yi lay yéeg yéeg boo xam ne jéggi na ndayoo kon Sénégalais ba ñu doon kaas dañoo bëggoon mu dellu fa mu nekkoon ci dix bi. ba ñu dindi os waaye du jógee vingt cinq rek xanaa ñëw ay vingt deux ay vingt trois mille. Mhm. alors que alors que os boobu dafa nekk os boo xam ne dafa nekk os boo xam ne dafa dafa dafa pour man pour man yëfu dof la mais amutoon benn sens. alors carburant bi gis nañ fi chauffeur yi di grève ne nañu wàññi essence bi ba léegi man gisuma ñu wàññi ko. gaz bi wàññi wuñ ko. gis naa ni ne lépp lépp a cher donc ay wàññit ay SB wàññeent la xaw ma daggati wàññi ah <laughs> boo xam ne kii génn du ko sentir ci ba léegi du am kii. Mhm. loolu ay naxee la moo ne nañu wàññi carrément bu ñuy wàññi dégg nga li ñu wax reportage yu léegi nii même ñoom ñu jaay ne nañ bu ñuy jaay di wàññi dañuy perte. ndax fa ñu jëlee ci grossiste ba wàññiwuñ ko waaye xam nga kon aussi métti na parce que aussi commerçant bi jaay moom it war na am tuuti bénéfice pour yore njabootam pour fay patente pour fay loyer magasin bi pour pour pour yëngatu di joxe dépense mais bu dee lu mu jënd bu ko jaayee day perte te gouvernement bi tax mu perte pour bëgg lu neex nit ñi ngay annoncé ne yow da nga wàññi te wàññiwoo dara te as tuuti si nga wàññi sax yaa ngi rey nit ñi kon loolu yëpp échec la dama bëgg vraiment gouvernement bi bàyyi affaire yi cuune man pour man gouvernement cuune la ñu am du affaire politique ah dama yaakaar ab ba léegi Macky amagul nit ñi nga xam ne ñoom ñoom la war a am ndax dama ragal ne gouvernement bi soit coalition di ko fal moo tax fu nekk mu tib fa amagul gouvernement am xëy na ba élection yi passé dina am gouvernement bees mais l'homme qu'il faut à la place qu'il est-ce que Macky am na ko est-ce que ki yore tel domaine war na ko yor. am na compétence. comme amateurisme bi am. le choix des ah, hommes bi am mooy. ba léegi gouvernement bi. gouvernement daal ñàkk pexe la ndax ñoo àndoon il faut ki am ñaar ki am ñett ki am ñeent ñu wër ma mais mag yërëm naa ko ah. sur ça. Mhm. sur ça dañuy rebondir un peu si euh, ma sama sama mhm. mag. Euh, dafa am lu am solo gis nga gouvernement il faut que nga am légitimité pour mën a bokk ci gouvernement. Mhm. tey jii boo jëlee lu mel ni le premier ministre mbay Mbaye est-ce nga ko dégg ci combat citoyen. est-ce nga dégg mu wàcc tëli. est-ce que dégg mu jël xeer kooku lan la war a mën a wan Bamba Dièye bu nekkoon ci place de l'indépendance. et sur les questions de transparence aussi parce que les gens le. cest que sur beaucoup des affaires et bon c'est-à-dire que un Macky qui s'est battu également. Mm-hmm. am légitimité am ñëw tôt ou tard mu neex mu naqari y aura clash entre ces deux forces là parce que ci force financière la ci force politique légitimité la am. mu nekk président public ak ministre yi. Uh-huh. contre également le président euh, le premier ministre Abdou Mbaye ça c' est très important c' est un fait politique dina ñëw ci kanam beneen fànn bi mooy dund gi nga forum civil ci biir campagne bi Macky bi mu waxee dafay wàññi ceeb bi euh, document yaa ngi fi ci biir campagne bi lañ lañ jël communiqué def communiqué ne ko c' est pas possible mënoo ko da ngay di nga jëm gauche jëm droite mais mënuloo ko moo tax bi ma jékkee-jékkee déggee ne UNACOIS def na annonce et puis c' est bizarre moo ko annoncé wala ministre. mais ina quoi jug tey ne annoncé nañ ceeb bi wàññeeku na y' a quelque chose bu ñu njëkkantoo rek c' est parce que a quelque chose derrière. oui mais mais complot la pour naan nañu boobu. <laughs> dañu ne oo dugal ci dégg. alors leen lii Amadou eh, <laughs> nga esquissé benn sourire pour dire euh, ñun ñun fu mu nekk dañu weesu xuloo dañuy xool mbir yi nu mu demee dañu yàgg wax ne dañu am complot moom la El Hadj Diouf wax léegi dañu ñëw ci campagne bi. ñu yeewu suba teel rek li doon jar dix huit mille dem vingt deux vingt trois mille. dem ba vingt cinq mille. dara mënu ko expliquer loolu pour daaneel Ablaye Wade la woon ñu sot sotoo ko. bi campagne bi jeexee Macky falu ni ko Birahim waxee. du président moo annoncé ne wàññi nañu. mais ñi comploté woon contre Ablaye ñoom ñoo ne wàññi nañu. gis nga wàññi loolu laay wax jamono. Hmm. dañu weesu benn jamono. jamonoy muusante ak naxante. dañ ko weesu ñëpp xam nañ ne sooy wàññi gouvernement da ngay subventionné da jël alal def ko ci alalu nguur gi alalu réew mi nga def ko ci pour wàññi njëg ñun bu ñu nekk pouvoir def nañ ko dem nañu ba subventionné à plus de cent cinquante milliards. Ah. pour wàññi prix ceeb. ñu gis ne loolu ci commerçant yi la doon dem kooku benn façon la ñaareelu façon bi mooy nga wàññi taxes yi l'impôt yi d'accord ne kenn ku ci nekk TVA mais mënoo ko wàññi. Mhm. les taxes extra mais ceeb mënu amul benn taxe boo ciy wàññi. ñu yeewu ne léegi wàññi nañu temps mais ci marge commerçant yi la ñuy wàññi benn commerçant du ko nangu kenn du jënd di jaay ci perte. Mhm. te gis nga loolu laay wax naan jamono dina dox muusante dafay jeex jamonoy jubbanti ak defaral mooy toll ak diisoo. Mhm. parce que gis nga nit mën na ñëw taxaw ne de dama yaakaaroon ne mën nañu wàññi ndax dama nekkoon ci opposition. waaye biñ ma falee ma xool gis naa ne mënuñu ko nga wax ak nit ñi. parce que nit ñi wolof moo koy wax su dee fi ngay dem dafay sol da ngay waxante dëgg ak nit ñi waaye mënuloo di naxante loolu dafa weesu et loolu ci gouvernance la ñu nekk. Euh, Macky mënul tàmbale régime te ci gouvernance bi def da doxalul dëgg ak jubal loolu baaxul day yàq ndax day tax ëllëg sénégalais di xarab politiciens yi. et li gën a tax aussi bokk na ci lii tax nit ñi su élection jotee du ñu voté mooy dañ naan politicien ñoom ñëpp ñoo yem dañuy wax rek mhm. ndax ku ñëw wax neex loolu baaxul réew mi toll na foo xam ne ne fii suñu réew réewu Sénégal dafa bokk ci réew yi dabee problème bi dafa bëri lool at bu jot mhm. lu mot ñaari téeméeri junni nit yu am fukki at ak juróom benn ñëw laaj liggéey te kenn mënu leen jox liggéey taxaw ne di leen jox liggéey amul njëriñ da ngay toog ak réew mi. ne situation bi lii la. nga waxtaan ak syndicats yi waxtaan ak baykat yi waxtaan ak banques yi waxtaan ak association ñu xool loolu lan lañ ci mën a def waaye soo diggee digga digga digga dig ba ñëw bu sotti. damay wax dara dama ko doxoon ci njëlbeen Sénégal tey ñun ñëpp xam nañu nu ñuy gérer Moussa Tine ngi ni nekkoon na fi député nekkat fi député Alaaji Diouf a ngi ni nekkoon na fi ministre nekkat fi député donc xam nañu. lu mën nekk ak lu mënul nekk absolument donc Sénégal tey classe politique bi discours véridique dafa war a am dafa war a am un niveau uh-huh. bu ko mën a permettre sur les questions essentielles ñu mën a toog ak nit ñi wax nit ñi ba dalal seen xel parce que foofu la ñu toll damay am lu may lu may lu may daanelee da wax bilan dafa am lu ma jaaxal may ma rek une minute uh-huh. dafa am lu président de la république def lu jaaxal Sénégal yëpp te war nañu tiit dañ ko fal mu def ci matul fukki fan mu dem France signé accord de défense ak tubaab yi te accord de défense bi bi mu ko signé ak tubaab yi dañu ne waxoon ci perron Élysée président Macky Sall ak président Sarkozy ñoom ñaar ñëpp ñu déggoo ci dara ñu ne dorénavant Sénégal dafa nekk ci ligne de front dans la lutte contre la euh, le mm-hmm. Mm-hmm. muy loo xam ne ne bi lu grave a grave la. Sénégal tey dafa nekk ci zone boo xam ñun rek ñoo ci stable. Mm-hmm. gànnaar ñu ngi ci ay jafe-jafe Mali mi ngi ci ay jafe-jafe Niger mi ngi ci ay jafe-jafe euh, suñu mbokk yi ci suuf Gambie gine Bissau Guinée ñu ngi ci ay jafe ñun rek ñoo ci am situation bu xaw a ci yooyu jamono fu matul fukki fan président dem signer accord de defence première question kan moo ko négocier kañ lañ ko négocier parce que mënoo signer accord de défense ci fukki fan. deuxièmement dañu jël suñu dëkk ne léegi mooy base arrière. pour xeex terrorisme te Sénégal mas nañu am xel depuis toujours ba lu ñuy def it dinañu aar suñu dëkk ndax tey mënuñu aar dëkk bi mhm. ci terrorisme ba toll nañu foo xam ne fii mhm. alqaïda ngi ñuy menacé léegi ñun ñoo décidé Macky moo décidé jël suñu pays def ko en ligne front sans ñu am discussion loolu aussi ci nu ñu doxalee ab réew lu garaaw a garaaw absolument parce que c'est des questions majeures ça il faut en discuter avec oui c'est-à-dire oui y a y a ñaari questions yi xam nga lu may mooy dama doon wax.